ci di seen kër moom Ama Baldé ndeysaan moom Ama Baldé bundu kër bundu kër jëlal ma bundu kër Ama Baldé jëlal ma bundu kër Ama Baldé jëlal ma bundu kër Ama Baldé jëlal ma bundu dugg na léegi ci kër gi dugg na léegi ci kër gi jëlal ma oto bi di arrière jëlal ma oto bi jëlal ma oto bii di arrière jëlal ma oto bii di arrière ndeysaan gaa yi ngi làmb gaa yi ngi làmb gaa yi ngi làmb gaa yi ngi làmb gaa ngi làmb gaa yi ngi làmb gaa yi ngi làmb gaa yi ngi làmb jëlama waaw jëlal ma loolu ndaysaan waa ilaa la buntu kër Ama Baldé ñu ngi tuur ay ndox buntu kër Ama Baldé ñu fay tuur ay ndox buntu kër Ama Baldé ndeysaan ñu ngi tuur ay ndox buntu kër Ama Baldé Ama dugg na ci kër gi léegi Ama dugg na ci kër gi léegi léegi Ama dugg na ci gi léegi ndeysaan Ama Baldé jëlama loolu jëlama loolu jëlama loolu jëlama borom bët bi jëlama loolu ndaysaan ndaysaan ndaysaan eey mbay ndeysaan ndeysaan ndeysaan kër Ama Baldé xam naa ni tey Ama Baldé mbër bi bu teel a génn lay doon seetlu naa kàrkaar yi fi rangaloo bëri na trop bu si nekk buy ñëw rek kay ay ndox xamaguñ nekk si ban la war a yéeg. mais am naa yaakaar ni est du yëg si bu weex bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan saan Fadel borom yére bu weex bii si maaraamaay la bokk kii mooy joxe moosay vert yeeg gi zone yi borom yére bu weex bii moom mii mooy joxe moosay weex yeeg yi vert yi moom mii ndeysaan ndeysaan Fadel met soog a ngi nii doomu ndey waali met soog mi ngi noon taxaw ci bunt kër gi moo indi moo indi woon meew yi léegi léegi. Ah moo indi meew yi bagage yi génn jëlal ma yi. Ama bale dafa mel ni pare na fu mu toll nii. ndeysaan bagage yi ñu ngi wàcc kaw escalier yi di génn. bagage yi ngi wàcc. bagage yi ngi génn. daa mel ni mbëri pare na bagage yi génn. bagage yi génn. bagage yi génn di dugg si oto yi. bitel yi ngi génn. bitel yee ngi génn jëlal ko baram kagul bi baram kagul bi innu la ñëw na ndaysaan ndaysaan bagage yee ngi dem ama ngi génn bagage ngi génn bagage yee ngi génn jëlal ma bagage yi jaaxaaral ma génn bagage yee génn mu ngi war a dugg oto bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan bitel yee ngi génn bitel yee ngi génn ndeysaan ba léegi saako yee ngi génn par benn benn ba léegi saako yee ngi génn par benn benn ndeysaan saako yaa ngi génn par benn par benn saako yaa ngi génn saako yaa ngi génn saako yaa ngi génn ñu ngi koy dugal ci karkat bi jëlal ma fii jëlal ma fii sama cameraman saako yaa ngi génn ci mikaay ñu koy dugal si ñu ngi koy dugal ci oto bi oto bi oto bi oto bu giri bi oto bu giri bi ñu ngi koy dugal bagage yi Ndeysaan Ndeysaan jëlal ma kii si kaw balcon benn bitel la yor di ko di ko yëngal Ndeysaan borom daaroo ngi nii moo ngeemoon poxola kii waa ji borom del bi mooy borom daaru si maaraay la bokk maara amaay borom daaru mi ngi noonu jëlal ma ko Pape noonu Tisseetu Jules Balla Junior sol moom Pape Sarr moom Pape Sarr bu ma lay indil fii damay taxaw wala may toog ban ngay ñëw tuubal hmm, sàppe yi caméra ma ñëw ndeysaan ooy mbay teel ma teel ma teel ma Jëluma disque yi ñu ngi discuter. ñu ngi discuter. Ndeysaan. Ndeysaan. Ndeysaan. instant yii nii instant yii booy xool midi jotagul te bagage bu ngi dugg. tey kii nuru na ma kuy teel dem stade tey moom Ama Baldé koñ léegi fees dell koñ léegi fees dell ndeysaan ndeysaan dem baa ngi noonu dugg si kër gi loolu kon maa ngi leen koy may ndeysaan ndeysaan ndeysaan xoolal Pape Sarr xoolal Pape Sarr xoolal Pape Sarr daa mel ni day ngemb dafa mel ni day ngemb daa mel ni day tax ndax ndax fu mu san gis gàllaaj yi génn xam na mbër bi mu génn bëreetul te gis naa gàllaaj yëpp mi ngi mi ngi génn par benn benn seen image baaxul seen sañ a wax man sañu ma kaa wax. ndeysaan. ragal boobu mooy ci réew mi. ma ne sañ a wax man sañu ma kaa wax. <laughs> ndeysaan. yeey mbay. ndeysaan. yëkkatil yëkkatil yëkkatil ndax ma dugal bopp bi di gis di mën a discuter. ndeysaan. Ah, maa ngi nii. Bundu Kër Ama. daa mel ne Ama mooy waaj a génnaat day waari day waaj a génnaat ma gàddu koor yi ma gàddu koor yi tey eh, dafa ànd ay gàddu koor tey ay gàddu koor la àndal tay ay gàddu rapporté tey mbër mi dafa am ay gàddu rapporté tey tey dafa ay gàddu rapporté tey moom Ama Baldé moom Ama Baldé tey ay gaz rapporté ñoo taxaw si buntu kër gi tey ñoo géré lépp yi Ama tey benn nitu Ama tey taxawul pour garder ko garde rapporté ñoo koy garder tey xoolal ma loolu buntu kër Ama gaa yi buntu kër Ama Baldé bundu kër Ama ndeysaan ndeysaan Paada Balde Paada Balde Paada Balde Paada Balde Paada Balde ngi taxaw si buntu kër gi moom Paada Balde moom Paada Balde ngi noon taxaw moom Paate Balde tey ma walla Fadel jinne nga woon mais tay doo jinne gis naa kenn koo xamante mi ngi sol laafa sa xel am na fu war a dem mul tudd turam mi ngi sol xam nga ko mi ngi sol masque sol laafa xam nga ko Fadel day làmbu jeex na ci ñuy làmb la waaw Ndeysaan. Ndeysaan. waaw. nade ko bandum tukulóor ka wax barki borom Tuubaa onon bandiraɓe fof minen salminan onon bandiraɓe fof toɗen mbimi ko mbimaki mbimeki rek minen salminan onon bandiraɓe fof loolu mooy maa ngi nuyu mbokk yëpp ah. képp koo xamante rek yaa ngi xalfulaar nga rek maa ngi ay ay mbay ay mbay gisatuma sama gaay may leen ma dugal bopp bi pour may mën may leen ma dugal sama bopp bi pour may mën di wax paate bal léegi noonu paate bal léegi noonu daa mel oto bi estaat la jëm oto bi pare na mi ngi dem oto bi daa mel day jiitu daa yëpp ay cumbukaay neex na gonga Fadel xam naa bii xam naa bii du gawe saaf bu ànd ak parfum bi a waaw moom la moom la yaakaar laal moom la xam naa ko moom la moom la moom la yii lañ may taalal sama jeeg bi yii la may taalal sama jeeg bu gën si man yii la may taalal maa xam yii ah laa ilaaha illallah hey ah ndeysaan xamal sa bopp rek xamal sa bopp rek xamal sa bopp rek am na boo fàtte hey mbay dëgg la dëgg la def si kot. def si kot def si kot waaw ñu génn bagage yee ngi génn oto bii ma gis nii mi ngi dem stade oto bii ma gis mi ngi dem stade oto bii ma gis nii mi ngi dem stade oto bii ma gis stade la jëm oto bi ma gis stade la jëm waaw oto bi ma gis nii stade la jëm oto bi stade la gëm oto bi ma gis stade la jëm ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan Demba sàccaaleel fii ndax fii la mbër mi nekk waaw sàccaaleel ma ndeysaan ndeysaan xoloma loolu ndeysaan tiset yi ay mbuusu tiset la ay mbuusu tiset la ay mbuusu tiset la ay mbuusu tiset la ay mbuusu tiset Ama Baldé la ay mbuusu tiset bale Baldé ndeysaan ay mbuusu tiset Ama Baldé la ay mbuusu tiset Ama bale lañ yor oto bi mi génn Fadel oto bi mi ngi génn oto bi day waaj génn oto bi def na ay galaaj di waaj génn oto bii ma gis ni dem na ay gaal ak oto bu giri bii di waaj a génn ndeysaan day waaj a génn day waaj génn oto bee dem oto bee ngi dem oto bee ngi dem génn oto bee dem oto bee ngi dem yem na ay galaaj di dem oto bi yem na ay galaaj mi génn oto bi yem na ay galaaj mi ngi génn estaat la jëm oto bi yem nañ ko ba mënut a dem oto bi yem na ay galaaj bay génn moom oto bi yem na ay galaaj ji dem beneen oto ñëwaat na xanaa bi day yeb beneen ñëwaat na mais bi yeb na ay galaaj di génn moom oto bi oto bee ngi dem oto bee ngi dem ban yoon lay jëm yeb na ay galaaj mi ngi dem oto boobu oto bee ngi dem oto bee ngi dem oto bee ngi dem oto bee ngi dem génn na direction stade la jëm direction stade la jëm yëpp na ay gàllaaj oto booba ngi dem beneen oto ñëwaat na taaw oto bi Ibrahima Diop moo oto bi Ibrahima moo nekk si oto bi Ibrahima Diop oto Ibrahima moo taxaw oto Ibrahima Diop bi moo taxaw ndeysaan ndeysaan oto Ibrahima Diop moo moo taxaw instant yi oto Ibrahima Diop moo taxaw instant yi may wax ak yow oto Ibrahima Diop moo taxaw oto Ibrahima Diop oto Ibrahima Diop moo taxaw oto Ibrahima Diop moo taxaw oto Ibrahima Diop moo taxaw oto Ibrahima Diop moo taxaw oto Ibrahima Diop jëlama buntu kër gi Khalil jëlama buntu kër gi daa mel ni mbër bi day waaye génn jëlama buntu kër gi jëlama buntu kër yi jëloon na buntu kër gi jëloon na buntu kër gi jëloon na buntu kër gi ndeysaan gaa yi ngi sotti sotti nañ ñaari butéel sotti nañ ñaari butéel sotti nañ ñaari butéel ñu sotti benn siwo bu weex sotti benn siwo bu weex benn siwo mu ngi sotti benn siwo benn siwo bu weex mu ngi sotti benn siwo ñu ngi sotti fu mbër mi war a jaar saa France yi nekk ñu ngi sotti fu mbër bi war a jaar ci boobu noonu ndeysaan billaahi moom ndeysaan Fadel kaay jël bi jëlal noo toogal loolu démb la ñoo bokk Pikine ñoo bokk ginnaaw raay noonu la demee nag ndeysaan defaral jubanti sama sànni ba dugal ma suruf bi ndeysaan ma foofu noonu si kaw ñi ngi sànni Pathé Baldé mi ngi ñaan Pathé Baldé xoolal ma paa yi ndeysaan ndeysaan Pathé Baldé beneen kàkkaat bu weex mi ngi dugg si waat ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw man ko jàppee gi rek ëpp na juróomi at ëpp na juróomi at Ama Baldé di xaar rek. ndeysaan Modou Lo di xaar. ndeysaan tey nag ñu ngi ñaan daal. waaw yàlla nañ ci dugg ak jàmm. amiin génn ci ak jàmm. amiin Ama Baldé Modou Lo. waaw gën a meer kat. ndeysaan ndax ndam li du génn Sénégal. dëgg la ndam li génn ci réew mi. ndeysaan Pikine moo jur Parcelles. dëgg la te Parcelles. Mhm. ak Pikine. benn bopp benn bopp la. ay xarit la du. ndeysaan. ah mbaa xam nga ni man mii Parcelles am naa fay xarit. mbaa xam nga ni man mii am naa fa xarit Pikine di xam naa bay xarit dëgg la Papis xarañ loo waaw sama xarit la ndeysaan boo ñëwee kër Ama Balde ndeysaan Alaaji Mbay waaw sama xarit la ndeysaan ndax ñun jàmm la ñu xam jàmm ay lépp xam ñëpp jàmm saan boo demee Balla Gaye naawal na lu mel naawal na pitax naawal na pitax la moo ne si valise bi doomu sëñ ateex bi doomu sëñ waaw kii sànni pitax yi mooy maam Seex maam Xaadim doomu sëñ ateex la mooy valise bi waaw seen sëñ Fall directement la jëlal ma booy bi seen sëñ Fall directement la jëlal ma ko jëlal ma booy bi doomu sëñ ateex la jëlal ma booy bi jëlal ma ko jëlal ma ko ndaysaan oto bee arrière mais jëlal buntu kër gi jëlal ma buntu kër gi jëlal ma buntu kër gi jëlal ma buntu kër gi ndaysaan ndaysaan ndeysaan déedéet ñoo bokk bàyyi liñ naan benn tax du sax benn tax déedéet ay heure la rek léegi mu jeex ay minute mu jeex am la bu digaaw la jaaxal buñu bi ñi yëngal sànq ba léegi lan la waaw bitel bi jar na la wax bitel bi ba léegi soo ba léegi dañ koy awante ku sa ku sa loxo toog nga jox keneen bitel bi bitel bi ñu est-ce que nekkul moom la ñuy yëngal moom Modou ndeysaan ñi nga yëngal ku nekk a ngi yëngal ku nekk a ngi yëngal mais lu ma lu ma lu ma jaaxal oto bi Ibrahima Diop nekk am na paa bu toog si kalam xam naa oto bi day waaj a génn moom tamit oto bii day waaj a génn. waaw. dëgg la. ndeysaan. ndeysaan. dëgg la. sa dara bi am na doole. déedéet. li ma waxoon gis naa ko léegi. waaw. ay 35. ndeysaan. ay 27. ndeysaan. ay 13. mais bii. ah xoolal mais bii. Ah, mais bu la gën may jot. mais bii. bu dana ak ñoom. eh Mbaye. eh Mbaye. am na ñeneen ñu ñu bëgg. ndeysaan. loolu dëgg la. am na ñeneen ñun bëgg sax ay ñan la man lañ bëgg ak yow. waaw ñoo bokk Pikine ñoo xew. ñoo bokk. waaw. mooy mooy mooy mooy mooy mooy bat Gaston. waaw waaw waaw maa ngi Gaston bi. Gaston dafa baax Gaston production. di ko ñaanal yàlla may ko de. kenn du moom. yàlla fukki boppam Ndeysaan. yàlla suñu frère Makan. na waaw. làmb li ma naan day boole. meeru tàqale. te am gas père Gaston def na làmb lu ne. ku baax la. ku baax la ku baax la. ku am détermination. Ndeysaan ku bëri jom ku bëri yërmande. Ndeysaan. ñaanal yàlla fudd boppam ndeysaan yàlla wéral mais direct bii mhm. ñu koy suivre xaaj bi yëpp ah. daa mel ni Ama lañ faral waaw parce que su ma nee Ama Baldé ñun ma defal daa am ñuy contrer am ñuy faral Ama Baldé def dara su ma nee faral Ama Baldé defal kër waaw wala muur doon defal loxo waaw ma ne kër yëpp nag waaw damay du ma gis kër yi ëpp gis naa loxo gis naa loxo loxo yi ngi jóg mais kër yi kër ah, yi ngi jóg kër ah, yi bari na kër yi bari na faral Ama Baldé defal kër ndeysaan ndeysaan xoolal ma fii xoolal ma lii boo yeeg sotteekoo ndox yi xoolal ma fii boo yeeg sotteekoo ndox yi boo yeeg sotteekoo ndox yi boo yeeg sotteekoo ndox yi ndaysaan fu mu toll nii dañuy réglage lañ nekk fu mu tol ni ñu ngi dañuy réglage fu mu toll nii ñu si dañuy réglage yi. daa mel ni daa mel ni mbër bay ngemb pour waaj génn fu mu toll ni daa mel ni mbër bi day ngemb pour waaj a génn ndeysaan ndeysaan fu mu toll nii dañee réglage lañ nekk ñu ci dañee réglage yi xoolal ma fii cat ba cat bug ba bug fees na dell ndeysaan fees na del koñ bi fees na del ndeysaan ndeysaan ooy mbay ndeysaan xoolal ma ñii ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan wanga wax nga dëgg xees de moom wala moom moo bu siraat la ndeysaan soq dëw gi noonu jëlal ma jëlal ma soq dëw ndeysaan li kaani la andum kaani ndeysaan kaani and bi kaani lañ ko def di boyal and kaani la ndeysaan ndeysaan nday waaw dañoo xiif si woteel ba léegi. ah a fay supporter. déedéet. Ama Baldé mënut a fay ay supporter. dëgg la. Modou Lo a fay ay supporter. déedéet. ndax yéen ci nawet bi. waaw. di da laa bëgg rek ñu yàlla. ndeysaan. ah loolu jar na yow quatre bi mhm. mhm. ful ñëwaat na ful ñëwaat na ful ñëwaat na ful ñëwaat na fu ne la ñuy jugee ful ñëwaat na beneen ful ñëwaat na beneen ful ñëwaat na beneen ful ñëwaat na yaa ngi dégg ama yee bi yaa ngi déglu ama yee ji yaa ngi dégg ama yee ji ndaysaan yaa ngi dégg ama yee ji ndaysaan ndaysaan waaye namoon nañ lii ndeysaan esaan tol nii esaan tol nii bu des bëreetul bu des bëreetul ndeysaan ndeysaan ndeysaan kenn taw jëlal jëlal faral jëlal toogal faral toogal toogal toogal booli booli booli boolu ceeb yaa ngi génn añ midi si laa gis tey boolu ceeb yaa ngi génn boolu ceeb yaa ngi génn boolu ceeb yaa ngi génn boolu ceeb yaa génn añ midi ñii par nañ añ midi bool yaa ngi génn ndeysaan ndaysaan ndaysaan ndaysaan jëlal ma kii jëlal ma kii jëlal ma kii jëlal ma kii nee na la yor ab la yor ah. Ah, xalil kii bal la yor yor yor ñaari bidel zumal zumal ndaysaan ndaysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan am na koy génn am na koy génn ndeysaan ñu ngi génn fara Ousmane Sonko lañ yor xool leen ndeysaan ndeysaan oh jumaloo paate jumal ndeysaan ndeysaan ah waaw ndeysaan anamu borom la bula loolu waaw ndeysaan ndeysaan donc maam Ibrahima Mbacke doomu sëñ Ateex la maam Ibrahima Mbacke doomu sëñ Ateex moo sol lu bële lii di manipuler téléphone bi.